waaye dana njariñ dama bëgg sénégalais yi seetaan ñu xam ne bis naka tey maane bu jibee moo ne amatu ko yoon tey maane man ma dikk jëng maa nekkoon bennoo bokk yaakaar doon fa liggéeyal président Macky Sall àndoon ak dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm sëriñ Bassirou Mbacké Diop maa ngi ñaan yàlla na suuf woyof ci kawam dem rëcc lu mu doon def ci àdduna te daje fa tawfeexi Cheikh Mamadou Bachir bis ne ko tey maa yëkkati sama loxo ne Bennoo Bokk Yaakaar tuddee ko Bennoo Bokk Yaakaar Bennoo tas yaakaar na Bennoo tas yaakaar nag man tey maa ne man ma dikk jañ àndatuma ak ñoom maa ngi nuyu soxna Astu Gaawaan Seen bokk ci njaboot ak Basiru Mbàkke Tiib maa ngi koy seen dëkke Daarul Tansiir maa ngi nuyu soxna Faat Njaay dëkke Kër Baay Laat bokk ci njaboot ak Basiru Mbàkke Tiib maa ngi koy seen maa ngi nuyu Faat Njaay Tuubaa Buqatul Mubaarak marché bu bees maa ngi koy nuyu waaye niki noonu laay séenee mbooleem ñu fa jóge El Hadj jóge marché maam bi te maa ngi koy seet ak mbooloo suuf woo ma téléphone ba tas waaye dañoo mën a yéeg Moustapha Dieng moom Baye Sëñ Dieng forage su Juga Kébé mi suuf moom délégation bi ñu àndal su ma ko toppee noonu fi la fanaan ñoom ñëpp ànd nañ mobilisé wu ànd ak ma dikkee jàng mi nga xamante ne nii moo fi des te sax njabootu Sëriñ Bassirou Mbacké Typ gi di leen déedéet ñoom ñëpp ak plateforme bi nga maa àndoon ak ñoom depuis Abdoulaye Wade ba léegi gis naa fi Ibrahima Diaby Gassama Petit Dioukhane ba ci soxna Maguette Bass ak mën naa ko ci cité ndax ci plateforme boobu la bokk ak soxna Boussa Diagne nekk ci derrière Aïda Gaye ma nga ne toog ci plateforme boobu la bokk plateforme bi di plateforme bu yàgg di bu yaatu mais nag ma nekk affaire moo ñoo fexe ba reconnaître plateforme bi kon tey dama leen di xamal ne a ah attention nag affaire su fekkente ne am nañ ab tiitukaay wala ñu ne ñoom dañuy politique wala xam nañ muy politique image bii tey bu ñu tëddee duñ nelaw ñoom image bii ngeen fi gis même yéen journaliste yi xam ngeen ne image su qualité ngeen te xam ngeen bu baax a baax département bi kenn du leen ko jàngal ndax mbojo mbojo lañ fi andi ay nit lañ fi andi ñun wax ak ki mbojo mbojo dañoo yor ak lonkaan ak roq la dañuy lonk di andi waaye roq bi day roq di delloo ñu bëgg ñoo ànd ak kuy tricher képp ko fi ñëw na la Birima ñor na la sëñ Abdou Karim ñor ñu ànd liggéeyal Birima Birima Mangara président 2000 le 24 février 24. loolu 2024 loolu lañ gëm ci dynamique boobu lañuy ñuy dox kon nañ leen takku am jom am fulla am ngor te xam ne as gor kàddoom moo koy yeew xam naa ne su ma fi nekkoon di wax fii ba suba li ma bëgg a wax. du jeex ndax xadar laa koy waxee ndax damaa yàgg foo xam ne amaluñ ma njariñ sama temps bépp jeex na fa ma door faa jóge ñëw ci Birima Mangara ànd ak moom ma di leen xamal ne nag ñi naan Birima dëkkul Touba dañoo réer xamuñu Birima Mangara Birima 1996 la ko Serigne Saliou Mbacke jox ab loo fii ci jànnatul Mahwa boori kër Sakaria Fall maam say Fall la dëkkal maa xam këram kër ga bokkoon naa ci ña fa doon dem anytime di ko yit añ di ko jëlee kër Serigne Abdou Samane Mbacke soxna bu boobu maa ngi yore ONG amal wax bu leer laa leen di wax saa bu ma ko masaan yi añ bu ma jëlee bool ba biri ma jox ma 20000 su ma ko yitee reer su ma jëlee bool ba mu jox ma 20000 biri ma li boole maa wax lay na waaleykum salaam wa tey bis bii di la le 4 novembre fii ci Mbacke ñoo ngi fi ubbi benn permanence boo xam ne si ne permanence su Birima 2024 IDP. àndaat pas ànd àndaat defaraat suñu Sénégal ndax ay ànd yu bari am na fi candidat bi ñu am nag c'est la première fois mu dugg ci politique ne day jël réew candidat boobu en 2014 la ko président Macky Sall nommé ministre du budget du Sénégal loolu duñ ko jox n'importe qui mu yore ko ba 2019 bi 2019 mu génn si gouvernement bi bi ñu ñëwee bay jug 2024 mu nekk citoyen sénégalais boo xam ne def ne soxla naa réew mi seet yan nit la ci mën a àndal ñi fi toog ñëpp ay góor lañ ñi fi toog ñëpp ay ndaanaani politique lañ am nañ jaar-jaar ci politique ñii ku àndal ngay wuti réew sa xel war naa dal ndax gis naa fi ñoo xam ne ñoo àndoon ak Macky Sall jëli gis naa bi ñoo xam ne bi Macky Sall jëlee réew bi bëgg koo yor tamit ci seen teer bakkanam dañoo ñëw mu demandé leen pour mu ànd ak ñoom ñu ànd ak moom kon tey ñoo ngi lancé appel ci Sénégal yëpp di leen wax ne leen Birima Mangara candidat la à la candidature ci élection 2024 yi ñu jëm di leen wax ne aussi waa département bu Mbacké tey le 4 novembre ubbi nañ permanence boo xam ne permanence bi ñu ngi fi fas yéenee daje di fi nas ak di fi nocci ba 2024 ñu jël réew mi ci loxoy waa Bennoo Bokk Yaakaar ndax waa Bennoo Bokk Yaakaar wane nañ seen i limite ndax réew bu ñu demee ba nga xam ne si ne courant bi seer na mburu bi seer na tamaate sax la daan jar téeméer léegi 2000 francs lay jar kon waa Bennoo Bokk Yaakaar wane nañ seen i kon nag li am solo mooy tey jii waa département bu Mbacké waa ANSD génn nañ benn déclaration ne ñoo ëppale ay nit ci département yi nekk Sénégal waaye mooy département bi gën a lompoñ ci Sénégal mooy département boo xam ne su weesoo Touba weesu Mbacké ak Taïf ak Tiib yi nga xam ne tali ba moo ko jaar amul beneen commune booy dem ci département bu Mbacké ab tali laa yóbbu ba sa biir commune boobu amul Touba bi nga xam ne moo tax département bi ëpp ay nit ci Sénégal 70 quartiers lu mat ñeenti at naanuñu amuñu ndox kenn réglé wul seen problème Touba googu transport ak commerce moo ko am li ëpp lay transporté nit ñi ci dëkk boobu ay sareetu mbaam lañ 902 sareetu mbaam lañ ko recensé ay 7 ans di ko dawal dëkk boobu ñoo gën a néew ñoo gën a néew ay intellectuels yu ñuy créer. ñoo gën a néew taxaw bu ñu leen amul centre de formation de métier buy ubbi bu leer boo xam ne nit ñi dañ fay jàng ay métier pour mën a téye seen ngor kon nag sàngane ko nga xam ne sàngane ñu ko depuis 1960 ba léegi ñoo ngi lancé appel population département bu Mbacké ne leen tey doomu Diourbel boo juddoo bu juddoo kër Samba Kane ñu koy wax Birima Mangara dëkk Touba mais nag soxla Sénégal di mbokkom ñëpp ci Sénégal moo ngi leen di tàllal loxo. pour que ngeen fal ko 2024 mu régler problème yooyu di sant bu baax aussi Serigne Abdou Karim Mbacké bu baax ci taxawaay bi nga xam ne am na ko parce que moom ci projet bi la bokk il ne pas un homme politique wàccul sur le terrain mais si ñu porté projet bi la bokk bari nañu toog fii ñëpp taxawaayam ak kàddoom ak gis-gisam moo leen indi ci biir projet loolu moo am di lancer appel aussi ñun ñëpp nañu jàppandoo téyandoo te xam ne réew mi bal buñ sànni la fi mu toll dañ koo salsalaatoo ku ne mën na koo capté salsalaatoo wala boobu ko lay doon def ku nekk mën naa ñëw ci say loxo waaye nag nañ fexe ba bu mu dem ci loxoy Amadou Ba ndax amul courage mus na taxaw ne candidat la il n'a jamais demandé le Sénégal dañoo xëy benn bis ay lobby homme d'affaires ak ay journalistes ñëw war ko fee teg yoo xam ne si dañoo am intérêt pour Amadou Ba fallu loolu ñun duñu ko nangu léegi nag. ay gumba kese ci benn dëkk nañ ma baal sax ay silmaxa kese ci benn dëkk benn njaajaar nekk seen biir mën na leen a nax problème bi nag mi ngi am bi silmaxa yi tàmbalee juri njaajaar ñun dundu ñu nangu mukk kenn di falu di bàyyi département Mbacké bu ginnaaw rawatina bu Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm